man man la bal bi dalan marché Touba. marché. marché Ocass bu Touba. marché Ocass. mooy bañ doon tiireente eh, ak policier yi. expliqué ñu mbir yi nu mu demee ko. man foofu laa doon jaayee. ci marché ba ci marché ba. wetu poste ba. léegi nag ñuy tiirante ma daw. ñenn ñoo doon tiirante. police yi ñoo doon tiirante. ak ñenn ak xale yu góor yi ambila ci marché bi rek. Mm. léegi ba ma dawee dugg ci biir dépôt jën. ba ñu sànnente garanaar yi ba baranaar yi daal. Mm. <coughs> ma doon daw di génn pour ñibbi. Mm. ma dawee di génn rek ci la ma bal bi dale. bal bi daal lay laal. waaw bal bi laal ma fii. fan la la laal. fii la ma laaloon ci put gi. ah mooy pax bi ma gis sa put bi nii. waaw fi la bal fi la bal bi duggoon. la bal bi ba mu duggee dafa génn feneen côté bi wala dafa des ci biir. dafa desan ci biir. dafa des ci biir fëlewul ci côté beneen. waaw léeg-léeg nii la taxaw rek. dafa taxaw noonu rek. waa waaw léegi nag bi ñu ko defee ñu yóbbu ma hôpital. Mhm. léegi benn waaye ni moom may faj yóbbu ma jël ma en charge. léegi bu la fajee hôpital bu nekk Touba wala. bu jannatu bu Touba. waaw léegi bi ma fa nekkee nag. def fa xaw ma juróom benn fan daal laa fa def ba ñuy waajal Korité ñu génne ma. maaraam bi ma doon faj ni moo may. jël génnee hôpital ba. fekk bal bi dindi nañ ko wala. dindi nañ ko ñu mu ngi woon ak médecin bi. ñoom ñoo ko opéré woon. waa ñoo ko opéré génne ko. mu ngi woon ak médecin bi léegi nag boobu ba léegi ba ma jugee hôpital bi te bañ ne ginnaaw suba la korité maara bi ma doon faj dañu woon moo may jëlal taxi taxi bi may jël si moo may yóbbu pour may faju ji léegi taxi bi ñaari yoon la ñëw ci biir koor gi gisatuma taxi gisatuma maara bi ñu euh, euh, euh, da nga dem hôpital jannatu foofu lañ la opéré faj la fa tëye la fa waaw léegi euh, ñu jël la yobul la ci cannatu ñu opéré nañ la. biñ la opéré dindi bal bi di la faj durant 6 jours. waaw léegi moom moo ne woon moo jël à charge mu fekk ma hôpital ni mom moy moy jël à charge su faj. benn sëriñ la mbacké mbacké waaw mbacké mbacké la. waaw léegi mu ni moom moo may jël asaar su fañ ma mhm. léegi ba ma jëlee ñu fañ ma fa ay fan mhm. bi may génn sax man mënuma dara xawuma dara itam mhm. samay mbokk ma mais boo dugal ci taxi bi ñu ne moo may génne gis naa kere ñu ma génnee këyit yi ma de ñu ma bindaloon ci hôpital yëpp da koo jël yëpp yóbbu man maa ngi nii fi mu ne maa ngi ñëw fii ñu bindal ma këyit pour da ko dem yóbbu sëriñ bi da ko dem yóbbaale yóbbaale ko yëpp la yóbbaale léegi mu ne woon damay booleeku taxi taxi bi may jël si pour toujours heure may jël si rendez ñaari yoon la taxi ba ñëw dikkatut ba ñu woo borom taxi ba dani ñaari yoon yi ma ñëw sax fayu ma ko léegi booba laa ko mujj gis muy bañ nee ginnaaw suba la korite may nekk ci samay rëbb rëbb di di di lijjanti sama bopp di jéem a faj sama bopp ba léegi médecin faj bi parewul pansement yi ci desoon wala la pansement bi booba guum bi kenn génneegul agrafe bi kenn defagul leen mënuma dara léegi loxo bi da koo jàppan ba tey nii loxo bi mënul dara loxo bi du jug léegi ñu ni problème siddiit la mhm. siddiit gi il faut dañ koy opéré ñoom ñu bindal ma kayit pour ma mhm. ñoom la ma defar siddiit bi pour loxo bi mën a jugaat waaw ñu a ko wooyee téléphone du jël téléphone am mooy ki la na wax ah, def ni la nga retiré pelante bi moom mu faj la moom may faj léegi nag fajar seetuma bàyyi ma nii maa ngi yor sama njaboot maa ngi yor juróom-ñetti xale yor ci sama kër ci laa yoroon sama kër kenn yoruma man début bi jël na la en charge faj la mais ba nga génnee ca nga gëj dee gëj ko gis fañ ma yeggul fañ ma yeggul ndax man mënuma woon dara biñ may génne sax dañoo newoon du génn moom mu ne na génn ndax man maay jël attaque maay jël taxi bis bu ne muy ñëw di faju si di delluwaat keram mu ko waxee laa ko mujj a gis ba moom daal daf la patam patamee pour nga génn hôpital bi daal daf maa profité ba ma génn hôpital mu retiré sama plainte def yëpp gisatuma ko déggatuma ko suñ ko wooyee téléphone du jël téléphone am xamatuma ci moom dara léegi yaa ngi Dakar fu mu toll nii. maa ngi Dakar depuis ba léegi maa fi léegi nag këyit bi ma bindaloon pour ma war opérer. yoruma xaalis. jaboot laa sama waa kër nga ma wàcc ne cëg Touba xaw ma ci lu ñu ne maa ngi ciy toog léegi nag ma indi fii képp koo xamante ne man nga maa dimbali te yàlla rek tax ba defal sama loxo bi man wér rek laa bëgg daal su ma wéree daal defe naa ne ñàkkutuma dara mm. rek laa bëgg